tey jii dama fi ñëw ngir ñu continuer xeex bi nga xamante ni commencé woon nañ ko depuis le 29 novembre ba ñuy dem keroog palais de la république nii li ñu waxoon askan wi lépp am na ndax yokku courant mooy yokk lépp tey jii ceeb yokk na tey jii diwlin ji yokk na tey jii meew mi yokk na suba transport bi dina yokk chauffeur yi dinañ yokk njëgu paas yi laneen ak laneen dinañu yokkal aussi ndox mi laneen ak laneen daal di yokk kon loolu li muy wane mooy xeex bii du xeexu waa ñoo lànk xeex bii du xeexu Guy Marius xeexu askan wi la xeexu ñi nga xam dañoo ndóol xeexu ñi nga xamante ni seen gannaaw seen loxo jotul seen gannaaw ñooñu ñëpp nañ leen di woo ñu ñëw jàppale ñoo lànk ñu wàcc ci mbedd mi kër gu ne bu bu ñu envoyé woon seen benn doom ñu ñëw fii place bi fees del président Macky Sall dina xam ni moom moo nekk ci njumte ndaxte kenn du jàkkaarloog sa askan di leen jaay doole. manifestation bi mooy pour ñu wàññi courant bi wàññi njëg yi ñu yokku yàggul en même temps Guy mari Sagna ñu libéré ko nu mu gën a gaawee. sénégalais yi rek ñooy nelaw waa ji toog ah, di leen def lu lu mu li mu bëgg li ko neex sénégalais yi dañoo war a génn jàkkaarloo ak moom na mu gàddoo woon matelas boobu mer gàddu taxaw di wax ak nit ñi la sénégalais yi war a gàddoo mer gàddu. fekk ko fa mu ne parce que kii fu mu ñu jëmee xamuñu ko suñuy sët suñuy doom fa ñu jëm ak kii. 2011 jamono Abdoulaye Wade gaa yëpp daan génn léegi léegi ndox yeneen presse yi nga xam ne dañ leen jënd ñoom duñ jënd ci manifestation yi duñ ñëw duñ yónnee seen nit Sénégal moo tax dem parce que koo jox ay milliards mu buuf ci mais yéen ñi ko ne góor leen ba dee te xam ne lii bi Sall bëgg du am ci réew mi du ko may di yimi Sall dina génn ci niveau fekk pale wala fekk fi fa mu nekk génn ko waaw loolu lañ ko xamal man jamono Abdoulaye waxoon naa ak gars yi ne Abdoulaye bi ngeen di xeex aw dal la moo gën bëgg Sall ñu di leen bopp tey gis nañ ko ñun parce que ñun dañoo génn Macky Sall ñoom ñu wax ñi bu demee bu demee France tëj ci def xamuñu li xew foofu mais ñun ñi nga xam ne ay di génn di gis français yi li ñu bëgg seen réew ak ñu jàppale seen di nax dañ leen di nax jéem a di ñu dugal si langa nga xamante ne nii ne ñun taxuñoo jóg muy la violence mais heureusement ba ko yeneen étudiants yi teelee comprendre daal di méfier wu Euh, loolu noonu ñu doon jéem a créer fii parce que divergence lañ bëggoon comme ça manifestation bi bu ñu jógee ñu ne étudiants yi ñu te fekk na étudiants yëpp a génn étudiants yi génn nañu mais ñu doon sànni waa mel la je le dis haut et fort te pourtant am na ñoom seeni i yaa ngi sunu biir lu tax seeni i nangoo ñëw ànd ci manifestation bi ñoom ñu bañ ne duñ ci ànd taxaw fee benn groupe bu cinq personnes la woon ñu doon sànni mais duñ ko defaat bu you neex bu nañ ci rek ñu que ko étudiant bi du arrêté bi étudiant bi est convaincu étudiant défendre population mais pas un étudiant corrompu ba nga à l'université bu démé occuper poste ministériel ou bien poste au niveau de l'État

tey du courant bi rek gis nañu tey bi ñu yeewoo diwlin bi daa yokk ceeb bi yokk euh, meew bi yokk donc bu ñu continuer di seetaan suñu Sénégal bi dootu dootuñu ko moom dinañu wàññi dund gi dinañu wàññi méttitu sénégalais yi mais boobu ba léegi ñu ngi gis méttit yi di gën a yokk méttit yi di gën a yokk méttit yi di gën a yokk loolu du yoon looloo waral doxu ñaxtu bi moo waral sensibilisation bi. parce que système la rek benn système moo fi nekk tantôt day sàtt wàdd tantôt mu sant Diouf tantôt mu Senghor sommes mu ngi sommes tous ñun xeexuñu Nous sommes ay nit du du Nous Macky Sall la Nous mais système bu muy incarné la Nous yu muy sénégalais donc système tant que nous ngi fi ku continuer continuer di maintenir système eh ben nous que fekk sa Guy il est assez courageux il est assez déterminé Les muy dund na connaît mais ramener les enjeux moo ko gën a xam ñun ñëpp moo Nous, engagé ñun kañ ki ñuy système système Macky Sall affaire di ëpp loxo na Sagna affaire courant de première nécessité sénégalais à bout